wala nga teg sa téléphone nit ba ko ñëw jël mais avec cette solution là boo ko defee diñ ko nuñ la ko waxee rek boo tegee sa téléphone bi ñu ko laalee rek dafay yuuxu xam nga dafay clignoter di yuuxu quoi et ça euh, mën na la aider surtout guddi gi boo tegee téléphone boo ko activé bu ko di bëggee ñëw laal ko rek automatiquement ça va déclencher te bu déclencher rek yuuxu bi day fort te boobaa di nga ko dégg aussi ki bëgg a def ñaawteef boobu noonu mën nañ ko. teg loxo ma tey moom lañ leen bëgg ñëw si astuce bii nii rawatina màggal gi jëm si ak gàmm yeeg yooyu noonu xam ñu bëree bëri dañuy jël seen téléphone sans plus tarder je vous aide à abonner et activer la cloche de notification pour loolu nag c'est facile affaire bi pour nga am ko c'est facile après fin ma bi nañ leen wan nag ngeen def ba mën a am li nga xamante ni mooy application bi léegi boo xoolee bu ñu duggee ci application bi premier dañuy wax ni pour ñu connecter suñu Facebook deuxième pour connecter Google troisième pour adresse email ñaari yëpp ñoom ñoo yem bu neexee mën nga bës ci fii Google nga dem sélectionner sa compte Google mu connecté facilement mais bi gën a gaaw mooy sa connecté avec un avec un téléphone fii sa numéro téléphone da ngay dugal boo fi ñëwee fii da taxaw bu ko defee mu détecte sa numéro téléphone wala bu ko détecté wul bu ko détecté wul maintenant da dugal sa numéro téléphone en haut sa numéro téléphone ngay dugal en haut. léegi boo dugalee sa numéro téléphone en haut maintenant vous faites valider léegi da ngay bës fii defal ma la defal numéro de téléphone bu ko defee ñu defar procédure bi ko après ñu moo wan leen après daf lay envoyé benn code benn code la ñuy envoyé gis nga automatiquement euh, débal waa direct directe na code bi quoi ba dugal ko gis nga parce que puce bi ci téléphone la nekk xam nga moo tax da ko détecté automatiquement validé ko voilà maintenant application bi léegi tijjeeku lii mel quoi comme vous le voyez maintenant actuellement euh, trois trois trois trois options la la jox quoi trois options première option bi muy mode de détection de chargeur bini ni boko activer activé heure boo brancher téléphone bi muy charger rek buñu ñu chargeur bi rek automatiquement téléphone day déclen day fay déclencher yu deuxième bi moy mode de détection de mouvement bini mon mom mo gëna euh intéressé bi boo tegee téléphone bi exemple nga activé ko bu ñu yëkkatee téléphone bi rek téléphone day yuux bii nii mooy mode de détection proximité maanaam boo ko defee sa poche et cetera wala nga def ko fenn ñu rocci ko boobu rek dafay déclenché léegi dañ leen wan bii nga xam moo gën a euh, am solo mooy boo ko tegee ni ñu yëkkati ko léegi bu ñu si cliquer gis nga daf lay wax pour nga def benn code parce que application bi li utilité xam nga bu fekkee da nga ko teg rek ñu yëngati ko xam nga euh, bu ñu ko yëngatee bu yuuxu mën nañ ko gaaw wàññi et cetera mais avec code bi daf lay permettre mi nga xam yaa ci def sa code yow rek yaa koy mën a tijji quoi bu commencé déclenché yow tant que tijji woo téléphone téléphone du arrêté du fay loolu mooy euh, utilité am da ngay def sa code supposons gis nga def sa code léegi entrée gis fii nii mooy sélectionner code PIN modifier le code et cetera fii mën la motif entrée un code pour lu ma leen doon expliquer sànq nga def benn code boo xamante ni mooy aller mooy arrêté li nga xamante ne mooy alarme bi léegi dañuy def suñu code léegi yow supposé yaa jël sa code bu la neex nga def ko moo xam nga def 2022 moo xam nga def 1900 nangam moo xam nga def 1 2 mais ñu dañuy def 4 0 rek am 1 2 3 4 léegi dañ leen wan rek moo dañuy def 4 0 léegi ñu def fii nii validé maintenant dañuy cliquer validé léegi lan la ñu wax ñu répéter le code léegi dañuy cliquer waat 4 fois maintenant ñu defaat fii fini. Mais def code boo xam na nga koy xam maintenant c'est bon léegi pour nga activer ko c'est facile da ngay ñëw fi nga def mode da nga koy cliquer waat gis nga léegi gis nga ko léegi boo ko fayee rek xam nga se bon mën nga teg téléphone bi quoi comme vous le voyez maintenant mën nga ko teg léegi heure bu nit bëggee ñëw jël sa téléphone rek ça va sonner dafay clignoter di sonner ko xam nga supposons benn téléphone bi laa yor moo tax mënuma yor beneen téléphone pour caméra pour wan leen démonstration bi mais bu ma yëkkatee bi rek dafay nga ngi gis mu sonner quoi léegi dañuy yëkkati téléphone bu ko ngeen xool. oui comme vous le voyez maintenant gis ngeen noonu lay fonctionner ko léegi yëkkati nañ téléphone bi yëkkati nañ téléphone bi gis ngeen ne affaire bi mu ngi yuuxu quoi bu ma yoroon beneen téléphone pour wan leen démonstration bi mais heure ma yëkkati téléphone bi rek affaire day sonné mais boo leen xoolee bi muy sonné flash euh, bi tàggoo dafa commencé yuuxu mais buy sonné nag tant que yow coupé woo ñëwoo bind sa code rek bi la arrêté quoi. xam nga bu fekkee nit daf ko yëkkati nag mu commencé sonné xam nga du ko mën a fay et cetera tant que yow ñëwoo ko jël ko di bind sa code quoi moo tax sànq mu bind code bi 4 0 pour mu tijjee ko léegi dama leen woon beneen astuce maanaam pour réglage bi fii nii nag wax naa leen ko c'est la même chose pour boo branché téléphone pour muy charger léegi boo la ñëwee fii nii réglage léegi fii nii mooy euh, avant muy sonné quoi fii temps bi mu la may boo boo boo boo kiiwee quoi boo defee kii bi comme sànq 5 secondes yi mu doon may fii nii mooy. Euh, bu nit yëkkatee téléphone bi ñaata temps nga bëgg ma def ko soog a sonné mais mën ko bàyyi cinq secondes léegi fii mooy tonalité euh, alarme yi maanaam option son yi la may gis na ay son yu bëree bëri la bii moo gën a fort camion de pompier bii nii quoi. boobu moo ci gën a fort man boobu moom bu sonné rek ñëpp koy dégg mën ngeen ko bàyyi fa par défaut maintenant fii code bi boo ko bëggee changer et cetera waaw fii élevé de mouvement bi ngeen ko bàyyi mais fii moo ëpp important mooy lumière. de police eh, flash manam bu commencé sonner. rek ngeen gis ni mu ngi jël mu ngi commencé di def flash même bu nekkee ci lendeum sa dañuy gis téléphone bi di quoi les dañ leen démonstration bi dañuy ñëwaat bu ko ñu activer mouvement mouvement de euh, mode de détection de mouvement gis nga léegi téléphone bi bu ko defee après ñu écran bi gis ngeen ni écran Euh, maintenant dañ koy taal léegi pour yëkkati ngeen xool maintenant yëkkati nañ ko oui c'est comme ça gis ngeen ni marché na quoi c'est comme ça maintenant application ba leen ko bëggee c'est facile il suffit ngeen ñëw seen Google Play Store ci barre de recherche bi ngeen tàppe alarme antivol ba leen ko tàppee alarme antivol maintenant moo nekk troisième option bi bii nii bi am logo bii nii moom ngeen télécharge gis ngeen ko logo bi moo nekk nii gis ngeen moom ngeen télécharge après avoir téléchargé ngeen def li leen wax